asalaamaaleykum mbokki ak xarit yi ñuy seetaan di am mbég ci contentement comme ni ma taamu di ko waxee saay su ne di leen dalal seen biir émission Sama Star Sama Star nag tey dañ ne moo tendance show biir euh, Ouest Foire tabaski la ñuy waajal ku ne tabaski paate xam ne jigéen ñi dañ koy waajal ak doole li ci cheveux li ci make li ci poudre li ci fard li nga xam ne tamit moom mooy euh, fond de teint rawatina finition yi nga xam ne jamono ji mu ngi tëj réew ma waaye parfum yeeg cheveux naturels yi lépp ñu ngi koy fekk fii ci nga xam ne mooy Ouest Foire di Isia Beauty paate dañuy dugg rek xool yu yang yi ndax nee naa leen période yang bi bu baax bi sama mag ju baax jooju di mataax borom couleur mi borom Isia boutique moo koy jaay let's goo Pathé ñu dugg ci biir. dugg si Pathé waxtaan ak euh, suñu xarit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci boutique bu mag bi muy Isia booti. Sabel mi nga xam ne moom mooy gérer boutique bi ku fi yegg si rek euh, mu teral la teral la ba nga kontaan xam ne àdduna teraanga Sénégal bët Sabel nuyu naa la. maa ngi nuyu na bu ça va si loo ah, ah. tey ñun ñoo leen seet si waa VIP people point net euh, groupe Isia booti ngeen lu mu ëmb lii di Isia booti ak couleur mi tey ñu fekk si la fi ñu war a waxtaanee seen marque bi nga xam ne moom laa fekk ci bunt bi. Mhm. léegi marque bi ñun ñoo ko représenté Sénégal. Mhm. Euh, marque note la. gamme complète la nag. Mhm. lépp loo xamante ni bii que da koy soxla si maquillage am na ko. fond de teint finishing gloss yeeg lépp. mascara tout tout li nga xam ne lépp di ngay soxla en plus c'est à base euh, c'est sans parabène amul effet secondaire c'est fait de plante tu léegi ñu bëri ñoo xamante ne bii que dañu am problème de peau dañ ko mën a utiliser sans pour autant ñu am ay effet secondaire si seen euh, seen si seen yaram li nga wax noonu yëpp nice na mais marque no note depuis quand ngeen ko commencé indi au Sénégal ak depuis bi ngeen ko commencé indi ba léegi est-ce que sénégalais ñu ngi koy découvrir bu baax a baax si au fur et ñëw da ngay gis ne que dañuy am ay dañuy am ay retour te tout le temps ku dem aussi tamit retombé dañuy ñëw mhm. euh, vis-à-vis si seen qualité et tout je pense que di mhm. def na fi 4 mois mhm. depuis boobu nag ñu ngi ciy gis ay résultats yu baax incha allah ñu ngi ñaar gis naa fi ay testeur ay lipolèvre waaw léegi ku ñëw nag dañ lay tester sa teint ak euh, lu la jàpp aussi tamit tey man su ma ñëwoon nii yegg si nii di leen fàttali mbokk internetu VIP people point net Sabel moo ma maquillé maquillage bu yànj bi nga xam ne simple na oyof na relax na moo fi jaar. ok merci léegi nga ma maquillé. léegi yow ñu ngi la maquillé not bi. gis sa kanam bi nu mu yànjee ñi c'est grâce à ça poudre bi laa la maquillé mhm. moom laa la poudré ak euh, waa exactement te dafa dafa am effet velouté mhm. boo ko defee c'est c'est c'est velouté ak euh, fond de teint bi tamit moo nekk nii genre lii mooy testeur fond de teint boo ñëwee si lii lay testele mais fond de teint bi en en en kii produit bi moo nekk nii léegi moom euh, not daal xam naa ne jamono ji mu ngi yëngal réew mi 4 mois la def Sénégal sénégalais yi di daw di ci xeex ndax lan mat. parce que dafa mat en plus tamit am na pour euh, mairie xam nga mairie en général tamit dañuy ragal def fond de mhm. léegi am na pour anti age ak euh, yii nii yoo xamante ni bii que dina mën a protéger ci kii bi am ñoom peau grasse am na mattifying extrême mooy bi ma la defara mhm. mooy bii nii moom bi mhm. leen wan sànq nii d'accord ci biir loolu maa ngi fi seen ay rouge à lèvres ay gloss léegi rouge à lèvres yi aussi gloss moom. note marque not la lépp marque note la. maanaam note daal bàyyiwul dara note mu ngi ci cils not mu ngi ci fond de teint not mu ngi ci poudre waaye not tamit mu ngi ci rouge à lèvres. rouge à lèvres note yi moom du du jeex en pagaille gis nga lii yëpp boo xoolee. rouge à lèvres not la. mais xaar ma wan leen ci benn bu ci nekk sa façon mais mën naa leen ci wan benn yi tamit ay gloss la. à des prix très abordables j'espère. Ah waaw en plus tamit ku ko bëgg en gros aussi mën na ko ñëw jaay la ko mën na la ko ñëw fournir la ko prix en bu bu abordable. Mhm. boo ñëwee dañ ko mën a jaayaat ci marché bi te après dañ ci génn bu baax a baax dañ ci mën a gis sa bopp. Mhm. comme euh, voilà. di fàttali aussi mbokk internet VIP people Isia bot yi dañoo nekk promotion pour tabaski bi. exactement voilà xam nga instant bii ni ak corona bi dafa xaw a métti dëkk bi. Mm-hmm. léegi de def promo pour euh, ñëpp mën see gis seen bopp. réduction de combien de pour cent. de 20 pour cent sur tous les produits. c'est important bu jógee si suñu produit notes yi nga xamante ne moo ëmb lépp. Mm-hmm. dañuy tourné si ñuy def euh, tuto salon yeeg euh, maquillage yeeg lampe yi en général dañu ko doon laaj lu bëri. surtout exactement pour lumière yi aussi. parce que genre pour plus de visibilité. Mhm. ci say li ngay pro sa produit bi ngay bi ngay wane da ngay day day am importance nga am. léegi lumière bi mi ngi nii. Mhm. bu la neexee mu orange. Mhm. bu la neexee mu weex. mais ko day adapté wu ci couleur bi nga soxla. exactement parce que ñiy def maquillage en général couleur bu orange bi lañ soxla. pour ñu mooy génnee couleur mooy génnee li ñuy li ñuy def. d'accord ñeneen bu weex bi ça dépend daal si li nga bëgg yow daal yaa xool lu si gën a neex rek. nga def ko li amul fenn. dugg ci boutique fekk fa maquillage yu mat sek dugg ci boutique fekk fa ki lay maquiller boo ñëwee dañ lay accueillir ba pare maquiller la jaay la produit ba pare nag ne waa salon yi demul kenn demul yéen ngeen des seetu yaa ngi nii nee naa leen jamono jii lee kenn maquiller tul moo ëpp ndax waa Isia boutique nee nañ dañuy ñëw xeex loolu groupe Isia boutique bàyyiwuñu sax cheveux nee naa la gannaaw bu ñu jógee ci li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllu maquillage ñu ngi gis cheveux naturel yi nii yéen ngi koy gis biir vidéo bi shooting boobu nga xam ne jotoon naa ko def benn ci bii ma takk nii ñoom ñoo ma ko jox bii ban la exactement. bi pink bi la euh, closure la euh, longueur 12 moom lañ la defaral nii. d'accord mm. j'espère que cherul. non du tout fii nii lépp genre gars yi ne dinañ gis. ci bi la bokk daal. waaw ci promo la bokk mais en ñu bëri dañuy bi ragal ko foog ne yu cher lay jaay alors que sont des prix yoo xamante ni dana adapté wu ak. Euh, population bi. bu ñu jógee ci loolu mën nañu dem ci HT26. Mhm. HT26 euh, mooy gamme am na teint clair teint marron teint noir teint mixte teint yëpp la. les sànq maa ngi la doon expliquer HT26 euh, bi gamme c' est une gamme euh, complète am na sax pâte dentifrice boo ko xoolee nii am na pâte dentifrice am na gel de douche am na savon. léegi na bu fii yaa ngi am. teinte ador yi am nga couleur yu bëri tent yi teinte semi permanent la ku ne xam na ko aussi si tenir boo mën a tenir ak couleur bi nga bëgg aussi tam la lay jox am na tamit xale jigéen ñi dañoo am problème mu seltu bu leer mhm. yaa ngi comprendre mhm. léegi selfie lampe bii nii moo leen di jàppale pour seen selfie leer ngeen di nekk boîte ngeen nekk seen kër que mu nekk foo xamante ne bii que amoo leen lumière bu bëri di ngeen mën a utiliser selfie bii nii pour euh, mën a illuminer seen snap xam nga xale jigéen dañoo bëgg snap dañoo bëgg snap ak photo léegi lii nag pour yéen la am na c'est disponible chez Isia Beauty mhm. voilà maanaam daal Isia Boutique moom bawul dara bawul dara boutique dox daje shampoing mi ngi shampoing pour euh, salon yi xam nga salon yi foog ñu am seen shampoing mag yi ak euh, pompa à eau lépp daal euh, colle cils yi ak trousse tout ça est disponible boo boo tourné sa ginnaaw yaa ngi am poudre yi kiis mat finish bi yaa ngi koy comprendre sax yaa ma ko doon wax ku ñëw nga ne ko proposé nga ko mat finish bi exactement minéral supersté bi yooyu yëpp ñu doxantu ba foofu kon ndax nee naa la matt finish ak minéral nekk na marque boo xam ne man dama ko bëgg ndax li ma bëgg sama teint li ma bëgg sama kanam moo ma koy jox. exactement bu ñu jógee ci loolu lii nag ñu am problème mu karaw. sama genre xam ne amuñu karaw. lii nii dina leen mën a jàppale pour ñu am pousse des cheveux bu bu gaaw te day gën dee sëkkal sa karaw aussi. ñi yëpp produit yooyu la pour produit ñi am karaw xaw ma problème mu bopp. Mhm. lii nag pour góor yi la fàtte ñu tamit góor yi ñu si góor yi tamit ba léegi nii. góor yi lii pour euh, seen bar bi la pour mu gën a bëri en plus mu rafet mu gudd mu liis ma bañ a nekk bar bi mbomb yooyu noonu. yaa ngi mhm. comprendre. bu mel ni bu sama caméraman bu paate bi moom daa mbomb ba yàqu. bi yaakaar naa moom dina ko war a mën a yittewoo. bii de dama ko siy jox sax yooyu dañ koy bañ ISIA ah, yu mbomb yooyu bëgguñu ko. Mhm. léegi gamme bii nag euh, crème of nature la. Mhm. gamme complète la shampoing la démélange euh, shining lépp lay def. pour tamit ñu am problème karaw. cheveux nappes yi. maanaam daal euh, ci gàttal pâté groupe Isia boutique ku fi dugg maanaam muy fii di couleur mi soo fa demee yaakaar naa sa xool dina neex képp ko am salon wala ngay bëgg a tijji salon amoon problème mu produit yu baax jeex na seen njàkkare jeex na daw si leen gaaw Ouest Foire boutique bi nekk koñu station Shell bi boo leen fi ñëwee rek seen xol dina neex ama pin waaw léegi adresse benn la. ouest foire la si tali nag bi ko koñu station Shell bi avant brioche dorée bi boo ñëwee rek à cinquante mètres euh, à gauche la lay féetee doo réer daal léegi nag boo gis nga rayon bii nii en fait mën nga dugg si place bi clients yi fii la ñuy passé la plupart de leur temps parce que fii la moo am lépp diwu champ euh, diw yeeg fond de teint concealer émail euh, palette yi fard yi ak eyeliner yi lépp li nga xamante ni bii ko soxla nga ko si maquillage fer à yi ak lampe yi aussi tamit tout ça Euh, tamit yan marque maquillage moo fi gën a fës. am nañ Dermablend am nañ Too Faced am nañ Becca am na LA Girl am nañ Superstay am nañ Fit mi am nañ euh, LA Girl tamit autant pour moi am nañ NK tamit benn fond de teint bu bees la mais fond de teint boobu tamit fond de teint bu bu baax la aussi hmm. tamit. à part loolu produit yaa ngi wax ne am ngeen ay diw yan diw marque diw ngeen fi yor actuellement. Euh, comme sànq am nañ HT26 bi am nañ Belda mooy diw yooyu noonu xam nga ko diw teint teint marron yi am nañ DRM4. Mm-hmm. lépp loo xamante ni bii que nit soxla na ko ci powam pour mu mën a am li mu bëgg si carrément. ka nga xees ka nga marron ka nga ñuul ka nga mel nu la neex boo ñëwee aussi si fekkee dañ koy réparer on mm-hmm. répare fekkee ni que dañ la war a euh, nga war a maintenir tamit ñu maintenir al yow daal yaay xool li nga bëgg mais diw boo bëgg am na fi tamit aussi mm-hmm. diw bopp diw yaram lépp yéen a ko déggandoo nee naa leen rendez-vous bi fii rek la groupe Isia boutique ñoom ñoo xewle nee naa leen jamono ji ñoo xew xale jigéen ñoom la ñuy waxtaanee xale góor yi sax nee naa leen fàttewuñu leen suñuy sinap Isia boutique la ñuy wax couleur mi lan ngay wax ci loolu émission tire à sa fin ma copine Sabel lan ngay tijjee ak looy tàggatoo mbokk internet VIP people point net d'accord léegi maa leen di remercier déjà yéen ñi fi ñëw déplacement bi xam nga dëkk bi déplacement bi instant bi c'est mhm. pas trop ça. maintenant on vous remercie de votre déplacement et que ñuy ñaan aussi tamit yàlla def li gën ci ci Sénégal aussi mhm. tamit ñu ngi woo clients yi ñu ñëw. ñu profité ci promo bi promo mi ngi fii ba tabaski mhm. c'est moins de vingt pour cent sur tous nos produits mhm. genre boo fi ñëwee di ngeen am li ngeen bëgg c'est moins cher mhm. voilà colonie bi nga tudd sànq sax am na fii nii dañuy def colonie que mu nekk bu góor bi que mu nekk bu jigéen bi aussi tamit ñoom daal ñoo xool kenn ngay remercier may remercier déjà ma mère di remercier borom boutique bi aussi Matar et tout le personnel ma koy nuyu moom aussi au passage Matar borom Clor mi Matar borom Isia boutique mu nekk nit ko baax ku simple ñu koy jaajëfal bu baax yéen a ko gisandoo mbokk internet VIP people nee naa leen ku ci ñaawoon dootoo ñaaw jekki ngeen bis mu ci tey ndax Isia boutique nee na yéen a ko tax a jóg ba nanguwul ñu naan jigéen bi dafa ñaaw bii dafa rafet nee na benn jigéen ñaawul donc ku fi doxante si rek macha allah di ngay yànj ba yàqu maa ngi nii yéen a ma gis ma woon nii mais sama xarit Sabel moo fi jaar maa ngi tàq ba yàqu yéen nag ni man laa bëgg ngeen mel kon daw si leen gaaw Ouest Foire ko ñu station Shell bi groupe Isia boutique boutique ñu ngi leen di xaar foofu numéro téléphone bi Sabel. Euh, numéro yi euh, ñaari numéro la mën nga woote si 777 707 74 74 wala si 706 76 76. boo si woo rek koo si jot rek dina la dalal aussi tamit wan la. yoon bi ak li nga bëgg nga gën a mën a nekk à ka nga ñëw fii ka nga nekk à distance aussi tamit mën nañ la livrer aussi xam nga instant bi tamit exactement ñu nit yi dañuy ragal a génn ak taxi mhm. yooyu noonu mën nañ la livrer am nañ service de livraison aussi on peut faire livrer les gens que ba fii que ba seen kër partout à Dakar mhm. est-ce que mën nañu xam aussi honoraire yi yan jour ngeen fi nekk ak yan heure ngeen fi nekk Euh, période tabaski bi nag dañuy dañuy liggéey dimanche. Mhm. à partir de dimanche prochain bii di ñëw nii dañuy commencer liggéey dimanche mais mhm. ñu ngi ubbee euh, neuf neuf heures et demie ba vingt deux heures. Mhm. ñu ngi fonctionner. Mm. merci beaucoup mbokk internet VIP people point net tey lii leen la ñu indiloon seen biir site VIP people point net nee naa leen euh, kontaan nañ ci yéen comme ni ma ko tàmm di waxee saay su ne di leen jox dig daje beneen yoon beneen gox ak beneen i boutique merci beaucoup à la prochaine merci. Música